tabaski jotee waaw ba nu rendi xar ya ba ñëpp ñaanalante keroog ci bis ba ku la tooñoon nanga booy booy xar mi war nañ sa mën a lekk dara de waaw war nañ sa mën a lekk dara nag parce que xam nga rek dëkk bi dafa dëgër quoi te xar mi instant bi xoolal mën nañ see mën a dóor te instant bi dëkk bi dafa dëgër non xar mi kebante lu ma jaaxal na mooy xar mi rey mu dee rey mu dee mais dara mooy loolu di si dara xool gérer loolu rek dem si paa xoolal paa fay ah. xam nga paa fay waaw waaw bu dëkk si koñ bi jabar ji doon ko sonal xar bi dama dóor ko xar bi waaw ah, kon ay war nañ ñu kër yi mën naa dem jëlal xar mi te amu taw dara waaw ah, nañ ko nañ ko teg dil paa buñ ko dóoree dil moom mais instant yi wax dégg naa dëgër na si moom lool dafa dëgër dafa dëgër te mën nga si am 75 ba 50 xam naa ne moom war naa sol xar moom tabaski bii mooy loolu mooy daf ko soxla trop waaw waaw nañ nañ dem ne yóbbu ko léegi dugal rek man ma jéem a xam nu ma def waaw waaw baal ma baal ma jëf kaa këlëm bi ok mooy loolu Yeah.

ah. sa xar mi. non oh, parce que xar bu baax laa la jox. xar bu baax la ah, maa suur nag. laay laa mi. ah suur kër nga ne xanaa gisoo bopp bi bopp bu baax la ñu. lii la nga jaayee. bii loo si mën. Hmm? ma 75 la xar baa ngi noonu. 75 75 rek ma jox la ko. Ah, laa la jox de parmi foo mënti dugg doo ko fi gis. benn couleur la benn couleur tas 45 rek laa jox. déet 45 waaw léegi jox ma ma jox ma xar yaa moom. 40 boo bëggee ma wan la calme bi boo bëggee ma wan la ko. non jox ma 50 rek. bilaay bilaay teg si juróomi rek juróomi rek. waaw su ma ma jox la bilaay mi ngi nii ci rek. waaw garaaw yow sama père ah. garaaw. daa daa xam xaalis daa xam xaalis baal ma teel la daa per tabaski baa ngi noonu tabaski ak ah kaay taxawal taxawal taxawal ma xool xar mi kan, dañ dañoo wax dañ koy xool xar mu baax xar mu mat ah, ya, yor yéen ngi mën na yokk mën na solo waaw yéen da si ah, iya, mau solo lool alaamañ bi xar boo xoolee alaamañ bi asalaamañ bi ñoo nduroo baax na baax na jërëjëf waay jërëjëf waaw jërëjëf tabaski ak jàmm rek jaajëf tabaski ak jàmm waaw baax na waaw illallah fii laa toog sànq di jàmmal xar xar na mbee kaay ñu ないかいバルバルバルバル myself is there lekal belatu meski non ngemag lekal boleh Silahkan Kan waaw xar mi laa dajeeg waaye ne waaye bu baax mu koy jaay mu defal mu ci yow baax yow ko jëndee xar mi sama yaay ko fekk si kër gi de ana tuuti mi laa la nga naan ma ana fii eh, na xar mi xar yow papa sa waa koñ bi xar yu jënd yow boo koy xar yu gars dama cee laa wax ah, xanaa xanaa gisatoo sama xar yu may xanaa seen papa sa xar yu jënd ay ngandee xar ngay jënd tuuti mais papa nga lijjanti ko xam nga ne sa yaay dafa fekk xar bi ci kër gi. la mel ni mii dina xam nga ma wax parce que yow li tax nga naan xar mi dafa ndaw xamoo njëgu xar lan lay jar da ngay toog nelaw génn ñu tegal la lekk nga lekk yow xam nga ne loolu ma nga koy wax waaye sama yaay bu ñëwee doo ko wax fete yow sa yaay ma ne fete yow sa yaay laa wax waaye yéen amate ngeen ma yéen chaque jour joxe dépense joxe faj waaw ma nga koy wax papa maa tey wut lii salaamaaleykum waaleykum salaam père naka mu père foo jëlee xar bi xar mi maa ko moom. yàlla xar bi sama xar la. waaw yow kii yam dëgg maa yombe kii moo dëgg maa yombe nit ku mag mu yeew xaram di ko nga ne nga ne nga ne yaa ko yow. yombe per xar bi sama xar la maa ko moom. ibi buntu kër jàmbur ñëw dugg taxaw ku moom xar mi xar mi sama xar la waaye yaa dëgg maa yombe yow. per foo ji la xar bi yow. toog sànq sama buntu kër waaju romb xar bi ma koy jaay mu ne ma waaw ñaata 75 bi ma ne yoruma fi 45 laa yor mu ne ma waaw indi ma dafa la ci xewal heurel nag xaru 45 bi la xoolal xar bi sama xar la maa ko ma waa ji la ko jaay da koo sàcc xoolal da doon mbëkkante ma kii xamee na xaram xar bi sama xar la maa ko eh, eh, eh. père defal nànk rek xar maa ko jël jox ma sama xar ma dem bëgguma coow lu bëri defal nànk defal nànk du yombee noonu bu leen di coow lu jox ma sama xar ma dem bii laa fi am bu leen léegi xar mi ray mu dee ray mu dee jox xar jàmbur kooku yow la intéressé jox ma sama xar ma dem fëttee mel si ba di yow jox ma sama xar père ma dem jox ma sama xar laay père jox ma sama xar jàmbur bi ah. lii xar mi xam nga ne xar mi xam nga ne sama yaa ko fekkee da nga am problème. dara yóbbu sa xar dama la wax. waaye di jënd xar ku la romb da nga jënd xar. waaw boo jënd xar da nga am dara da nga jënd xar bu mag mu ñu mu ñu faj dara ah. waaye dama ko jaay fu naa woon. maa ngi àgg ci biir sama xamoon na li nga wax sa dugub. monsieur Diakhen dana àgg ci biir du am xarab ba nga joxe sama xar mi kay dana àgg ci biir. xam naa tàgg tàgg dërëm yoratuma ko quarante cinq mille laa yoro fay xar waa ji ñëw naan waaye ituma xar waay waay waay ah. sa nday yang ñëwee mbokk ko mbokk ma loolu ba ba ah jox ma xaraam yi yoo xam nga wéyu ma yow sa nday yëpp lay